salaamaaleykum sunu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu euh, di leen ziar à travers euh, leeral TV di leen baalu àq di leen baal àq di yàlla sunu borom boo leen jéggal tey jii nag ñu ñëw euh, seet si nit ku baax di alaaji As Ndaw Ndoukoumane waaye fas yéene koo laaj ci sëñ Mat Saxir Lo ndax dafa am waxtaan wun bëgg a def ci sëñ Mat Saxir ñu bëgg ñëw na ziyaara sëriñ As laaj ko kan mooy sëñ Mat Saxir Lo ausbillahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam Maas ñu ngi leen di fay leen wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di sant yàlla di julli ci seydina muhammad di kontaan lool ci ñëw gi ngeen ñëw seet si ma pour ñu waxtaanee alxaaji ahmad saxir loo radiyallahu anhu di sant nag di gërëm leeral tv e di ñaan yàlla yal na man France 24 ak Al jasira ci barke alquranul karim e di sant vraiment di gërëm sëñ Mass mi nga xam ne kenn la ci kokki kenn la ci njàmbur kenn la it ci Sénégal Eh, di wax ne alhaji ama saxiloo radiallahu anhu boo may laaj kan la damay laaj ne alhaji ama saxiloo nit ku baax la woon hmm. alhaji ama saxiloo <clears throat> radiallahu anhu nit la woon ku nga xam ne dundam yépp daf ko paase ci jaamu boroomam jàngale alquran jàng alquran ak jàngale ko ci la paase àddinaam bi yépp E, yàlla suma borom dogal mu nekkoon nit ku nga xam ne ku tabe la woon ku amoon fit la ku am ngor la ku am jom la ku am diina la loolu daal mën nañ ko wax a agum ci rajo Amath Sakho Lo ba déglu question yi. kon maanaam euh, li nu mën a jàngal ci loolu mooy. Euh, ak jom jooju. ak diina jooju. maanaam lu mu def ci yéen la. waaye ñuy gis tamit. Euh, ngay dem kokki def fa lu am solo boo demee kokki dem nga fa résidence bu mag boo xam tudd ko Ahmad Saxir Lo ginnaaw loolu xabru ba kon xam na ne nga yeesalaat ko tabax ko ba mu yàgg def ci lépp muy sedd ak climatiseur lépp na fa macha allah waaye barki dem nga def tamit lu am solo dafa résidence ah, alaaji maxtaar naar Lo mi nga xam si la moo toog tey toogaayu suñu mat saxir ñu ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér kon ah, xale ya fa xam si la dañ fa nekkoon tamit nga nekkoon tout temps comme ñoom nekkoon fa waaye dañuy gis nga ñëw rey nag yu bare bare ay xabban togg ko ak ña ñam waaye jox ko xale yi ñu koy lekk waaye sa xol di sedd loolu lan la la def. waaw alhamdulilah loolu tamit eh, comme li may toujours rek dama wax na ñun El Hadj Masakhi Lo radiyallahu anhu moom la ñuy roy ci àddina gannaawam sëñ Saliou Mbacke te boo xoolee ñoom ñaar parce que genn xalima lañ eh, Eh, xam nga nit lépp looy def def ko ngir yàlla ak yonent bi mm-hmm. loolu la yema saxi loo doon def dafa wax ne bu sañoon boo ko joxee dongo bi mm-hmm. daf lay fay yow mi ko ko jox mm-hmm. fay dongo bi fay ndeyam fay baayam ba pare jàngal ko ba mu pare mu dem mu des ak yàlla alors jëf jooju mënoon jëf ngir yàlla ñun moom la ñuy eh, jéem a toppandoo parce que alquran dafa wax ne li misliha sax fal yaamalil amilun c'est-à-dire lu baax bu ko kenn defee ñëpp a ko war a roy di ko def moo tax ñun bu ñu toogee chaque quatre mois maximum cinq mois dañuy dajale suñ dërëm ak su ñaari dërëm bu ñu demee eh, togg ko jox ko xale yi xam nga xale yi nag moom daf leen fonkoon moom El Hadj Amath Sakhir jàpp naa ne xale yu ndaw yi sax la gënoon a fonk ci mag ñi parce que daan na wax ne na ngeen jàngal xale yi te ragal yàlla ci seen jàngale te ci ñoom naan bu kenn xale yi bu leen kol lor parce que lépp a ngi ci kon ñun bu ñu fa nekkoon nekk xale ñu jàngal ñu yar ñu euh, def ci ñun ngor ak jom ak fit ak tabe ak nangoo jaamu yàlla kon bu ñu màggee ña fa desit ñun it dañ leen di jàppale ci liñ man parce que jàppale leen mooy jàppale suñu bopp bu ko defee ëllëgit ñeneen ñëw jàppale leen daara ji rek noonu la war a demee ba idaa yawmal qiyaamati mais daal alaaji ma saxit loo mii ngeen di waxtaane daal jàpp naa ne la alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh waxoon rek laay wax mooy balaa ñoo xam ku ko gën saa dafa taxaw ba yàlla wan ne kii moo gën alaaji ma saxit ak kii ak kii waaye jàpp naa ne sallallahu alayhi wa sallam rek lañ génne ci xeet wi nga xam ne eh, moo gën ñëpp waaye gëm naa ne bu yowmal xiyaamee bu saa taxawee da nga xam ne alaaji Ahmad Saxir Lo radiyallahu anhu ku baaxoon la mhm. kon mi ngi noonu alaaji Ahmad Saxir Lo di ku baaxoon mhm. waaye loolu ba tey mi ngi ñëw mhm. ndax baax googu mu nekk ak yar boobu ak jàngale ji ak fulla ji ak fayda ji ak fit wi ci la def gone yi ba nga xam ni ci loolu la nu nekk ba nga xam ni yéen ñi tey jóge fa di dox ci loolu ba kenn ku leen gis ci fulla ak fayda ak liggéey ak jaamu yàlla rek ngeen nekk waaye nag sëñ ma saxir loolu nga wax ci moom wax ko ci gone yi mm. waaye sa diggante ak moom mm. maanaam baatin ma dafa mën a am nga nga nga dund loo xam ne tey mm. muy jafe-jafe mu ñëw taxawu ci wan la ci baatin bu mat sëkk loolu lan nga nu ci mën a wax. waaw loolu itam alhamdulilah rabbil alamin gars yi dañ ma koy aaye sax waaye damay wax ne. Euh, alquran ndax fa wax ne wa amma bi ni'mati rabbika fahadis nee na xéewalu sa borom da nga ko war waxtaanee. ala jama saxiloo lim ma njëkk a teralee mooy suru biñ ma fa indee. man yàlla daf ma bindoon ma nekk xale bu léej ñu woon ma denc Daaru Salaam may jàng mais mu xool ma mu ne ma ndax da jàng ma ne waaw mu ne ma duma la yóbbu Daaru Salaam dèjà te booba amaguñu sax une de temps loolu teraanga ju mag a mag a mag la lu ma marqué la lu ma yar la lu ma bàyyi xel la lu ma loo xam ne toujours dama ci dama ci dellu si ñaareel bi bi nga xamee ne jàng naa ba jéb pare di jàng jàngale bés man son papa mag la woon daf ma bind lettre ne ma man maa la doon dimbale ci daal te man soxla naa ku ma dimbale. booba am naa ñaari mag. waaye ma dem jox sëñ bi lettre kon ne sama jàngale. ba benn bés rek moo mu ñëw mu waaw ba la sa bàyyi joxoon xanaa da ko fàtte ma ko de fàtte ko mais joxoon naa ko yow. mu ne ma euh, waajal dem yori leen. loolu nag dama jàpp ne ba ma koy wax man booba xale laa xaw leen. Mm-hmm. waaye bi àddina yàggee laa doog xam ne loolu siru bu mag a mag a mag. Eh, radiyallahu anhu yàlla daf ko mayoon xam nga mayu yàlla dafa yaatu ñun dañ noo toog di waxtaan ak mu ba yàgg mun nañu waaw xanaa gisu leen tabax yi ci ci daara ñu ne sëñ bi lii am jëmba fi nekk nga ay tabax sëñ bi xam nga ñun nag dañ ko yeboon booba amul kooku amul tabax booba amul benn tabax booba am njëmb rek a wër daara ji mu waa xanaa gisu leen tabax yi hmm. bu ko defee ñun ko waaye sëñ bi lii di ay njëmb nga naan tabax waaye hmm. lam doon wax eh, alhamdulilahi rabbil alamin yàlla wane na ko daan nañ toog ba yàggin mun nañu mbaalu oto yi ñuy war daf leen a jaaxal mu ne mu a seeni oto koy dàq fuuf hmm. te ah wallahi yàlla xam ne loolu hmm. donc moom xam naa ne ku yàlla baaxaloon la rek ku yàlla baaxaloon la et ku yàlla mayoon la xam nga yàlla yafalu maa yashaaw nu muy may doom aadama moom rek koy xam hmm. euh, vraiment daal bu bu bële moom dañ ma tere ne bu ma ko wax mooy affaire rebelle yi waaye yii daal mën naa la ko wax ci ne man xamoon naa ne borom baatin la borom saahir la woon gaa mais borom la woon gis naa ne mbooleem lu mu mas a wax rek dem nañ ba teg ci suñu bët. Mm. waaw mais affaire Robert nag mën nga ko may nag ci bu bees bi di leeral nag. ñu am loo ñu am boobu exclusivité nag. waaw waaw affaire Robert yi moom daa gars yi ne bu ko wax ma ne leen xam nga man li may wax rek man yàlla daf ma bindee vraiment euh, mënu ma wax lu dëgg wax. dëgg as ah, xam nga loolu. Euh. mënut a ñàkk. Mm. ndax olof dafa ni. sant yàlla dafa mel na dem. kon bu leen defalee dara. Mm. nga sant ko ci wane ko loolu dafa naa ni du lu aay. wallaay dëgg la waaw loolu moom comme ni nga ko xamee rek dafa am benn bés. Mm. ma jógee Gàmbi ànd ak sama soxna ak sama chauffeur. Mm. ñun ñaar ñu toog ci gannaaw. chauffeur bii dawal bi ñu génnee jululu rek. am na dëkk bu ñuy wax Kabyle yi ñu turne rek seen robel yi ñu taxaw ñu arrêté ñoo fetal yi. ma ne ko chauffeur bi na nga freiné parce que man bugguma jël balu gannaaw. bëgg naa buñ may rey ñu dóoree ma ko ci kanam. yàlla dogal bi ñu wàccee ñu jël suñu bagage yi bi ñu jëlee suñu bagage yi ci suñu kanam rey nañ fa lu mat juróom benn nit waaw bés bu métti laa lay wax ni yàlla dogal ki ñu mujj rey nekk koo xam ne du nit ku mat ku gàtt la nii muy raam di nëbbutu ba génn rek waa ji ne am na ku jaar ni xaaral ma ñëw rey ko te ñëw bu dem rek rey ko bi mu ko reyee nag su ma yaram tàng ma jóg ne ko ma yéen bu ngeen reyee nit ñi ba mu ñu jeex bu ngeen jëlee réew mi ku ngeen di gouverner mais ma wax leen ko ci kàllaama joolaa alors ñu ne ma yow joolaa nga pare di wax dal jël yet dóor ba suma loxo bi damm hmm? ñu yebal ma ca kanam pour fiise ma dama dem rek toog dama toog rek fekk landing ne mi ngi jógee bi ñoo na jëm jululu hmm. ñoom ñu seen oto yi daw gàttandu oto yi bi ñu leen gàttandoo arrêté leen oto yi bañ ñu forcé ñu dóor fetali oto yi ko comme foofu ak jululu soriwul ñu jaaree fa daw waaye man bi ma toogee rek hmm. radiyallahu anhu dafa ma traversé rek am baat bu ma wax ci alquran ma jàpp ca booba moo tax alxuraan moom comme ni nga ko xamee rek euh, ñun dañ ko fonk fonk ñi koy jàngale fonk ñi koy màggal fonk ñi ko yor waaw képp kuy jàng alxuraan ñun bu buñ dajeek yow jàpp nañ ne yaay suñu sëriñ alajama saxirloo daal liñ mën a wax ci moom bëri na waaye lii daal xam naa ko ci ak beneen bi nga xam ne moo ci gën a yéeme mooy dafa yemale woon jaami yàlla yëpp kokki nga ma wax ne moom moo ëpp taalibe ci réew mi ndax boo demee Touba taalibe yi murit lañ am boo demee Tivaouane woon yi Tijaan lañ am boo demee Njaasaan taalibe yi eh, Njaasaan lañ am boo demee Laayeen taalibe la alajama saxi loolu dafa am taalibe murit am taalibe Tijaan am taalibe Njaasaan am taalibe Laayeen am ay salafis mm-hmm. donc li tax loolu mooy daf la doon jàngal yar la jox la xam-xam ba pare bàyyee la nga dem ànd ak say bokk waaw moo tax mos pas-pasu jàmbur mosu ci wax loolu vraiment dama gis ne lu lu moom tax na li tax mu réussir la mu réussir beneen bi mooy ku neexoon a gis la saa boo ñëwoon ci buntu daara ji da nga koy fekk mu toog nga ne ko ana sëñ mu ne la jàllal ci biir soo demee ba ci ñu ne mais romb nga sëñ bi bu ñu ànd ak yow ñëw ci mu ne man maay taaliba mu mag bi lu mu guddi guddi xale bu ko soxla da ngay ñëw ba ci néegam nga ne sëñ bi sëñ booy fëgg rek muy la nga wax ko li ko koy mu utal la solution mm-hmm. tey gisoon naa ne dund na ba génn àddina ci néegu ñax la dëkkoon te booba daara ji tabax nañ ko partout mm-hmm. gisuma woon daal lu mu doon jëlee ci li mu doon def mm-hmm. di ko def ci boppam man gisuma ko woon waaw waaw war daray àddina daal wala loo xam ne njëriñam la lu dul payu yàlla daal gisuma woon mu nga xam ne moom daal na ko jëlee ci liggéey bii mu doon liggéey muy liggéey bu mag a mag a mag mm. mag boo xam ni jaamu yàlla rek la ko doon defee mm, mm. te wutu ci woon àdduna ah, lam cey wut ah, mooy yàlla nañu ko ci yàlla fayal te comme ni nga ko waxee léegi bu saa taxawee mm, ba ñëpp taxaw la ñu doog a nangu kan moo ko gën waaye fi ñu nekk ci àdduna te dafa naa ne li mu fi wane def ko ci nit ñu baax wane ko ci génn ko ci nit ku ci mel na yow mii ak ñeneen say morom yi mel na yow macha allah mu génn leen ci te kenn ku nekk ci lu mu la gis rek mooy dalay naw mooy yaa ngi ci li nga war a nekk mooy jàng ak jàngale ak liggéey ak jaamu yàlla nekk ci li nga war a nekk kon daal sëñ Mat Saxiir di nit koo xam ne daal ah maanaam multidimensionnel la waaw loolu la ko noonu ko tubaab doxe de mhm, waaw ah. waaw moom kay xamal naa la ñaar moom nag moom bu fekkee caaxaan jeex na ba dëgg des hmm. euh, euh, multidimensionnel la hmm. ndax daal vraiment li nga xam ne liggéey na ko daal hmm. ci réew mi génne ko ci ay baykat génne ko ci ay imam génne ko ci ay professeur ak docteur ak i opérateur économique daal vraiment gisuma gisuma université bu ko réussir te it daara ji mu yor tey ñaari université ñoo ko ëpp ci Sénégal muy bu dakaar bi ak bu saint bi bu dut boobu rek moo la ëpp xam nga loolu itam du ndaw te ba nëgë ni mi ngi dox te 39 ba nëgë ni lañ ko sanc bët bu set muy màgg loolu dafay wane ne moom ku amoon baatin la ku am barke la ku nangu woon a jaamu borom la di ci profité nag di nuyu vraiment ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon a ndoor ku mel ni Serigne Mbuub ku ci mel ni euh, sëñ Bas Xaadim Awa Ba ku ci mel ni sëriñ Saaliw Mbàkke Xaadim Awa Ba ku ci mel ni sëriñ Habibu ibnu sëriñ Fàllu ak sëriñ Cheikh Awa Balla ibnu sëriñ Fàllu ak ñoom maam As Ñas tant d'autres dañu bëri ñi fa nekkoon lor tey it këri diine yëpp a fa nekkoon tey it mboolem Sénégal këru diine yi ñëpp amoon respect ak cofeel ci moom daan yëkkati seen doom di leen ko jox kon daal lu baax man ta weesu baax waaye alaaji ma sax loo radiyallaahu anhu ko baaxoon la baax du weesu baax waaye mën naa jàll baax te loolu di wax naan baax baax na lool waaye lu muy baax baax nga bàyyi fi ku baax ko gën ndax boo fi bàyyee lu baax li nga fi bàyyi du ràpp du ràpp du réer mu bàyyi fi ku mën a sëñ Matar Naar mu yeggale yëf waaye macha allah teg tànkam foo ko waajuram ba tegoon te eh, ni nga ko waxee université Cheikh Anta ak eh, ba Ndar muy eh, université bu nekk Ndar muy Gaston Berger mm. waaye yooyu yëpp nag mm. état ko yor mm. leen jàppale. waaye bii nag ku mel ne ay bonne volonté comme yéen ñi jóge ci daara ji mhm. ku mel ne yow mi nga wax léegi as alaaji as ndaw ku mel ne Serigne Mbuub ku mel ne Abdou Aziz Sylla ak ñeneen ak ñeneen mhm. ñoo xam mënoo leen lim mhm. tey ji nag ñoo yor daara jooju ginnaaw ndax ndax ndax ma Mar Saxir ba mu fay ñëw ci dégalu maam Cheikh Mbaye dina kon demal jàngale ngir yàlla fay wun kenn kon loolu ah war nañ cee lancé nag appel état bi ndax xëy na mak président Macky Sall mi fi jógee xamoon na ko xëy na daan na ci daan na ci jàpp as tuut tuut waaye nag Diomaye Faye mi ak Sonko mi nga xam ne dafa naa ne mas naa ñëw kokki sax kon xanaa am na loolu baar yoo leen sànni bala ñoo bala ñoo tënk waaw eh, loolu itam dañuy sant yàlla bu baax di jur Seydina Muhammad xam nga eh, Seydina Ousmane moom comme ni nga ko xamee wo isyam kuru bi kal la sina kafaru la yasdiqunaka illa aaxiri aaya moom xam na loolu moom alquran moo ko ko réussir loo loolu man awma ci sikki sàkka kon nag ñoom vraiment jàpp naa ne fàttali leen ko sax yàq suñuy wax la man gëm naa ne ñoom danañ dem ca daara ja danañ jàpp ca daara ja danañ ca dugal seen loxo danañ ànd ak waa daara ji liggéey parce que xam nañ ne ñoom ñi nga xam ne ñoo yor réew mi ñoom la ñu di liggéeyal di sant nag di gërëm comme ni nga ko waxee ku mel ni Abdou Assis Sylla ku mel ni Serigne Mbuub ku mel ni sëñ Ba Xaadim Awa Ba ak tant d'autres ñi nga xam ne ñi ngi ci dugal seen loxo di nag sant di gërëm eh, Maulana alhaji ma sax loo radiyallahu di ko ñaanal yàlla yal na aljannatul firdaws di këram mu am fa ay tooli tooli tool ci barke yonent bi di ñaanal yàlla sëriñ maxtaar yal na yàlla defal ko fan wu gudd mu am wér gi yaram yal dundu dund ba nu sàppi ko ci barke alquranul karim ak mbooleem ñu koy jàppale ci njiital sëriñ Fadilou Lo ak mbooleem doomam yeeg taalibe yi ñépp ñi ñaan yàlla kokki daal la sëriñ Ahmad Saxir Lo radiyallahu anhu daan wax rek ñaan na yàlla kokki mu nekk xettilikaayu mujjug jamono man aas ndaw gëm naa ne kokki tey mooy xetlikaayu mujj jamono te loolu ci suñ kanam la ne ñu ngi ciy woo réew mi yëpp ñu dem fa siyaare xool dellu siwaat ba xam luy xew vraiment daal ñi ngi ñi ngi ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment di sant nag suñu yaay daara yi mm. waa kokki yi ñu dëkkee kokki ak ñi ko wër mm. nga xam ne ñoom ñoo mos a jàppale sëriñ bi ci dundu daara ji mm. jàppale leen ci taalibe yi jàppale leen ci liggéey bi eh, ñu ngi ñaan yàlla la ansaar amoon daal yàlla na leen ko yàlla defal fam fa lawaa ansar defaloon rasulullahi loolu lañ defal alañu ma sax loo radiyallahu anhu kon daal ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral réew mi jàppal réew mi suturaal réew mi tey nag yonent bi alayhi salaatu salaam dafa waxoon ne na wiiru manaasilakum bi qiraatil quraan kon réew mi daal nañ ko leeral ci jàng alquran te xam naa ne kokki ngi ci bay waaru yaatu ak mboolem réew mi ñu ngi ci bay seen waaru yaatu waaye kokki daal desu ci gannaaw wala loolu daal mooy doon suñu kàddu yàlla na yàlla defal ñu jàmm defal la ko ah, kon jërëjëf ah sëriñ As Ndaw kàddu yi am na solo ah, ñu ngi lay gërëmaat di la sant ci ah, macha allah disponible bi na ci yow macha allah ñu ñëw bëgg waxtaan ak yow nga sawar ci waaye yow lenn ñorlul kokki kon ku la wàcc man sax dafa naa ni loolu dafa naan woo woo nga naar ci guuxum soow maataal kon macha allah daal ñu ngi lay ñaanal yàlla gën laa kattanal dëgëral la yokk wér gi ci barke sëñ Mat Saxiir waaye barke alxuraan kon daal loolu leen indi woon ci reportage boobu ñu defoon tey ci sëñ Mat Saxiir ànd yéen kon xam naa ne ñu dem ba ci kii bi xanaa am na loo ci war a sànniwaat. li ma rek mooy émission bi maa ngi ñaan yàlla. yàlla na bokk ci émission yi gën a mag ci réew mi te incha allahu rabbi dina ci bokk waaw dana ci bokk ndax nag kii nga ko bëgg a ubbee wallahi wal quraan la asim buñ demee barandi déwén da nga xam ne def nga mbir yow it ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na nga ci am fattu yàlla na nga ci am nasru tele bi am ko ci réew mi am ko ci allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim muy noonu loolu mun a ñàkk kon euh, muy loolu muy kin ko bëgg a muy sëñ ma saxirloo di première émission muy premier numéro bi nu bëgg a def waaye ubbee ko si Mat Saxir Lo waaye as mi bëgg cee jàpp ànd ak ñun jàppale nañu ci bu baax a baax ci macha allah ci sponsor yi ñu ñu macha allah ñu liggéey ci te loolu ah, mi ngi ci kon ñi ngi koy ñaanal moom it comme ni mu ko waxee rek ba mu gën ci émission yi waaye bu feeg déwén bu ñu dellusiwaatee ñu gën a xam ne macha allah alxuraan moom ku ko ko teg loxo mu teg loxo kon macha allah jërëjëf As kontaan nañu sunu xol sedd na jërëjëf kon àndoon nag sa sunu maan muy ABC macha allah borom son yi neex yi lépp loo bëgg mu leer mi ngi noonu.